tambali rek damay daldi di rek résumé di wax ni F24 mu ngi tambalé d'abord incliné wu devant la mémoire de tous les sénégalais yi nga xamanteni ci fan yi ñu jóge ñak nañu seeni bakkan ci événement yi nga xamanteni amna sénégalais yépp di ko naqarlu ay doomu Sénégal yi nga xamanteni ñi ci ëpp dañ leen boom te ki leen boom mooy nguuru Macky Sall waaye it F24 mu ngi regretté yenn scène yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko aussi ci réew mi muy euh, attaques yi nga xamante ni ñenn ñi def nañ ko te ñun jàpp nañ ni bokkut ñu ci ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni ñu ngi xeex pour démocratie wu Sénégal ñu ngi xeex pour que Macky troisième candidature am mu tegee ko wet ñu ngi xeex pour que Euh, leader politique yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi leen di galgal ginnaaw bu mu ko defee Karim Wade def ko euh, nu mu tudd di xalifa Sall tey mu ngi koy bëgg a def Ousmane Sonko te amul beneen leader politique bi nga xamante ni il à l'abri de cela que mu tàkkal ko bépp leader politique bi nga xamante ni war nga dem ci élection yi nga mën ci dem waaye it xeex ngir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

pouvoir exécutif manipulé pour que def aussi mbirum blocage internet il est inadmissible mais vraiment il est inadmissible qu'au XXIe siècle parce que askan peuple sénégalais de pour faire une démocratie pour faire pour que et que que peuple Bobu ñu koy d'internet depuis plusieurs jours le Sénégal pour cette raison aussi est la risée du monde entier amna sama benn xaritu activiste bima ma waxtanal Cheikh Fall bu Africtiviste mu ne ma daanaka sax dama dama waddal ay rongoñ bu jenn africain yi nga xamanteni ñun biñu dan dem seeni dëkk ñuy bàkkoo démocratie bu Sénégal di len jappalé ci yenn jumtuwaay yi nga xamanteni seen citoyenneté day gëna ñong ak seeni taxaway ci seeni réew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 plus de 500 arrestations qui ci arrestation yooyu lay taxaw parce que je pense que fi ñi je suis le mieux placé pour parler de ça ndax gis ngeen ci lu toll juróomi fan euh, jàppee nañ ma fii ci suma assistance commissariat jëppal ñu may bàgganteloo entre commissariat le commissariat central parquet euh, section de recherche de la gendarmerie ma jàpp ni peut-être que yàlla moo dogaloon lolou pour que ma dem man mi nga xamanteni ni bokk ci nga xamanteni ñun ñuy wowe leader que ma mën a teg ci li xew mais mënu len ko sax imaginer mënu len sax imaginer les centaines de jeunes sénégalais yi nga xamanteni defuñu dara li ci ëpp ramasse systématique je pense à Séni bi nga xamanteni c'est un liveur qui a des positions ci léew bi ni muy doxé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 pompe à gaz pompe ko ko c'est ça qu'ils ont fait à ce jeune bi nga xamante dañ ko fekk muy raxas motom et ils sont des centaines comme ça des centaines des centaines ñu ngi ci biir entre commissariat et ay retour de parquet yu dans des conditions inhumaines et pour la plupart ils n'ont même pas d'avocat, ils n'ont même pas de conseil. Personne ne les suit parce que nous Il y a des efforts que PASTEF fait, il y a des efforts que le F24 a commencé à faire, mais par rapport aux proportions, il y a affaire des centaines de jeunes On parle ici de 500. Romunoko, Romunoko Didem. Ils n'ont même pas d'assistance. Moi, je pense que F24 a lancé un appel pour que nous nous top et pour vous dire ce que man déjà j'ai pu comprendre que un modus operandi mooy dañuy jàpp ñu bëri jël ay charges yu avons teg ko ne leen ñëpp dem dem manœuvres de nature à pouvoir créer des troubles euh, graves à l'ordre public et des troubles politiques graves len ko man j'étais j'étais man tamit lolu lañ def avec 14 autres personnes commissariat central jóge fa euh baganté retour de parquet ba ñew jakarlo juge d'instruction il ma mu notifier ma ni né mandat de dépôt comme tous les autres mané ko non je rejette ce mandat de dépôt parce que li procureur bi né ni la may en même temps que beaucoup d'autres citoyens defuñ ko mu ne ma est am nga preuve mané ko preuve mu ngi ci internet bi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

firnde yi ma len jox man sax lima dund yalla def ma dund ko et je pense que c'est la main divine yalla def man ñu téema ci condition yoyu ma dem tek beut limay tek beut ba mu tax bu amé lenen luñu wax ma mën ñew teggi ko à l'aise pour le faire parce que deug la gaañi Gagne, l'heure est grave la situation est grave et elle demande à ce que ku ci ait responsabilité. et F24 d ait responsabilité. responsabilités li ci Sall dans sa stratégie de communication appuyée d'un certain d'une certaine presse Yann ce qu'ils sont en train de faire c'est de couper internet continuer commencé légui di dem ci këru ñenn ñi di défoncer seeni porte di leen dem jëli couper internet ba nga xamanteni monde bi kenn du ko gis mais en même temps ñom ñuy communiquer di nan peuple sénégalais du peuple sénégalais moy manifester ay voyous la ak ñi nga xamanteni ay samba boy ay bandi ñom ñoo jog rek pour casse c'est ça qui se passe donc circuler il n'y a rien à voir motax F24 japp ni lolu dañ ko wara déjouer ah malin malin et demi lolu la tuba bi di wax c'est-à-dire lu ñu bëgg woné opinion internationale pays bi nga xamante ñu ngi monter dossier pour mu dem fa ak yenen ak yenen ñooñu lañu bëgg wonni Sénégal fi tout nice citoyen sénégalais manifester wuñ dara amul opinion buñu manifester ay bandi ñoy genn rek bëgg bloquer réew mi té du dëgg communication bi am fan yépp lool la meilleure manière de déjouer cette communication xam moy mooy lan mooy de lancer une vague de manifestation yi nga xamante day permettre à nos maman man sama yaay musul tant tante ci marche, ak samay tante ak sama yenn kilifa mais ni buñu nañu manifestation pacifique autorisée di gis ay millions sénégalais c'est la meilleure manière de déjouer ce mensonge de Macky Sall il faut que parallèlement à ce mensonge bi sénégalais yi nakarlu ñu ay bandi rek ay manifestation bi ñu par A ou B suñuy yaay suñuy papa suñuy kilifa suñuy rap des milliers de sénégalais voire millions ñu pour que opinion internationale gis peuple bi dictateur Macky Sall nous mu doon Nous ko dañu bëgg mu li am yépp ci tout de suite que Ousmane Sonko li ñu nekk di ko actuellement que mu que prisonniers yu nekk prison yi ñu nous ñu ñu

nous tambali def les démarches qu'il faut pour que ñu amal vendredi inshallah. bu vendredi dañu jëm ci samedi ci manifestation samedi bi VDN bi il faut que monde entier les caméras du monde entier nous gis VDN sur des kilomètres et des kilomètres ay sénégalais suñuy suñuy yaay suñuy kilifa nous faisons ñu feesal VDN bi ba mu dem fi mu dem peuple sénégalais mo bañ actuellement peuple sénégalais mo taxaw tém pour que dictature Macky bi mu taxaw ñi ñu wara ñu Ousmane Sonko injustice bi muy dundu. mu deñ ndaw ñi ñu bàyyi len mu nak ak Sénégal jël ay engagement troisième mandat bi ba mu sax ñu Sénégal woote bu f di wax ni rek ni toppuma texte bi freestyle laa def waaw di leen jaajëfal di leen di jaajëfal bu baax merci